ak yéen euh, ci euh, photo yi nga xamante ni moom euh, suñu invité As Diouf comme nuñ koy rekk woowee dana ko rekk daal di xool photo bu nekk mu kon def si un petit commentaire avec la complicité de la régie on va commencer par la première photo vieux Diouf. aha vieux Diouf bu nekkee mun nañu jox walla première photo bi mm-hmm. voilà Abdourahmane waaw ñi dey moom macha allah ñi ñooy samay waajur. say waajur. Mhm. Euh, j'ai encore la chance de les avoir. de xam naa ne chance la quand mhm, mhm. góor gi léegi mag la. mooy Idrissa Diouf. moom mu ngi mu ngi village bu tudd Kignaabour. Kignaabour moo nekk entre Popenguine. ak si Sindia. voilà 4 kilomètres yow xam nga foofu. donc ñun foofu mooy suñu village nataal actuellement nii mu ngi fa. Euh, donc ki mooy suñu waajur boobu mooy surtout ndax nam Diouf man nag damay tooñ souvent moom bëggul sujet parce que moom c'est un érudit mhm. moom toute sa la ko déjee mhm. des fois dama koy tooñ ne ko papa bul fàtte ne ñun mhm. que sama maam bi ko jur ndax nam Diouf mais dem na ba nekk mag ñuy door a tuub que moom mii seen taaw seen famille Pape Mbatt mu gaañu yaa trois ans Pape Mbatt dem na ba am cent cinq ans di door a desee yaa trois ans seen ñoom juddoowul ci lislaam donc ñun tam africains yi des fois côté ceddo boobu dama bëgg ñu koy revendiquer gis nga sama maison d'édition bi est-ce que gis ndax nam mm-hmm. ndax mm-hmm. gisoon naa ko mais xamuma lu doon waaw ndax nam mooy sama papu pap mm-hmm. macha parce que il est né ndax nam bi mu tuubee nekk jullit ñu tuddee ko Ibrahima Diouf macha allah man je me naa jëliwaat ndax nam bi pour qu'on ne perde pas le ndax nam parce que pour man man nga nekk jullit mais am turu ceddo turu africain c'est logique moo ne pas obligé de s'appeler Abdourahmane comme man wala Abdoulaye mën nga tudd ndax nag mën nga tudd Dibor. mën nga tudd Diomaye nekk jullit. bon mm-hmm. je suis mënoon je l'ai pas appliqué dans ma vraie mais dama gëm ni. Mm-hmm. loolu ci li tax ñu par suñu culture la moo tax man ndax nam bi dafay ñëwaat souvent te nag moom mooy mère Mbengue. Mm-hmm. Mariem Mbengue moom lébu Tëngéej la. voilà ñoom tam bon sama famille yëpp sama ñoom maam Marème Gassama sama ñoom tonton Babacar bi ma tuddee sama taaw moom bon amoon na benn rakk bu jigéen Fatou mais comme dafa teel a décédé moom mooy jigéen. seen euh, seen seen famille samay cousines yi loolu laa leen di tooñe ma leen yéen benn bàjjen rek ngeen am mhm. say woo ngeen toppatoo ko mieux que ñun biñ koy toppatoo macha allah mais comme li ma wax pour terminer rek ci maire bi sama xam nga kañ la bàyyi jaay cere mhm. ci covid bi covid bii 2020 suñu kër ba 2020 dañ koy cere ba léegi sax dafay am ñuy ñëw fëgg jox maire mbay nga ne cere yi pourtant nag góorgóorlu na dem na ba ay doomam am mën yor bi may nekk DG par exemple sama yaay day jaay cere. bi may nekk directeur du club des investisseurs sama yaay day jaay cere. Mm-hmm. saa yoo waxee mu ne la da as cere ji li ci nekk da nga koo xamul. mu ne ma fii dinaa fi toog ay nit ñëw fi. Mm-hmm. dugg ci sutura. Mm-hmm. nga nattal leen loo xam ne ba ñu demee ca la ñuy reere te fukki dërëm ñu la jox sax doo ko amul. doo ko am. loolu itam li may wax ni nit da nga respecte respecté vocation am jaay jaayul cere au début da daan jaay cere parce que daf ko soxla woon mais après jaayul cere. da doon da doon dund mm-hmm. sa vie. la fin de sa vie yàlla na ko fi yàlla yàggal. amiin amiin jaay cere donc mère Mbengue vraiment ak papa Idi yàlla na leen fi yàlla yàggal amiin amiin yàlla nañu yàlla mm-hmm. may gudd fan ngeen yàgg ñu. amiin yàlla bu incha allahu rabbi mm-hmm. euh, deuxième photo. ah waa kii nag moom. <laughs> ah sànq ma la wax ne boo ko defee woon clin d'œil rek problème. Euh, waa kii moom mooy uh-huh. ah, dafa jaay tur xam nga Ayda Diop la tudd. après ñu def Ayda Diouf. ñu dem ba ci biir ma dugal Abdourahmane. waaw waaw <laughs> léegi Ayda Abdourahmane la tudd. Ah. bon man pour parce que j'aime bien l'esprit famille man sama doom yëpp dañu am Abdourahmane. macha allah voilà ku ne dama def prénom def Abdourahmane. pour am benn benn esprit voilà comme noonu <laughs> exactement. donc mooy Ayda Diop damay fay ay royalties may a dee. nitu Thiès la nag. Ah, ah, moom moom nitu Thiès la voilà ma leen di nuyu sama goro mère Khadija Gueye ak ñoom Mbaye ñoom mama ñoom Jibi ñoom papi ñoom ñëpp ñoom collègue euh, moi je dis toujours la j'ai la j'ai la meilleure belle famille mm-hmm, du du du Sénégal ñi dañu dañu baax daal euh, Aïda on s'est connu à l'université bon temps yooyu man maa ngi terminé ñun ñëpp ay ñun ñaar ñëpp ay juriste lañ. Euh, man maa ngi def maîtrise moom muy door a ñëw di def première année ma am sama benn jean ñaari t-shirt ak benn Lacoste. Mhm. voilà compétition bi metti lool. <laughs> man may làkk ay tubaab di defaree exercice su droit mais moom loolu la bëggoon loolu la ko gënaloon. kon ko fël nga ko jaarale. Ah, université waaw waaw waaw xam nga da nga assister en boo fi gis droit surtout mu takk beneen juriste ci ay jàngale ay TD yu mu takk yooyu nga lu ma ci gën neex uh-huh. daaw daaw dem nañ université dafa am village B waa université Saint-Louis xam nañ ma. Mm-hmm. moom village B la dëkkoon ma dëkk village A. village B dafa am benn banc bu fa nekk. Mm-hmm. donc moom on s'est connu en 95 à l'université gis nga daaw dama ko jël moom ak sama doom yi ñu dem ma wan leen banc bi nga xam ne fa laa xamante ak ah. Aïda ñu toog ci banc bi jël une photo mu nekk pèlerinage presque vingt cinq ans après donc moom tam maa ngi koy remercier moom par exemple le fait que ñu ñibbi si Sénégal nii bon c'est elle qui paye le prix fort parce qu'elle était fonctionnaire à l'État de Genève ah. département des finances jàng droit mm. mais bi jëkkëram ne nañ ñibbi Sénégal dafa bàyyi lépp ñibbi si bon saa yu <laughs> yàlla baax na. <laughs> xam ah naa ne ay noonu la ñuy mel ñun voilà mais li dàq mu ngi ci kanam waaw waaw moom dañuy reproché rek. Euh, l'autre photo. waaw ça j'aime bien cette photo. Mm-hmm. Euh, lii quatre vingt mars quatre vingt dix huit. Mm-hmm. xam nga man maa ngi dem octobre quatre vingt dix sept Genève vingt neuf octobre quatre vingt dix sept. mais yàlla dafa ma may chance bon maa ngi woon ci petit boulot yi et tout mais très rapidement ma tombé ci benn ONG ñu recruter ma pas à temps plein à temps partiel. benn ONG bu tudd Peste Ténébras Dios temps yooyu euh, lañ doon négocier boo leen rappelé woo euh, la cour pénale internationale. Mm-hmm. donc moi je faisais partie j'étais jeune ah j'avais 27 ans bokk ci africains yi nga xam ne dañ doon négocier dem Rome nekk Genève nekk ci réunion yi pour que la cour pénale internationale mën a am. donc dama def Genève 3 mois ONG boobu recruté ma 3 mois après ma ñëw ci réunion bi qui était organisée à Dakar à l'hôtel mm-hmm. Ngor ko sax. Mhm. parce que man sama voyage dama jëkk a dem un premier mercredi le 22 problème billet bi je l'ai partout parce que j'avais acheté un billet simple ma dem ñu <laughs> ñu delloo ma ne ma mënoo voyage ak billet simple semaine bi ci toppaat ma jënd billet retour parce que on justement on n'avait pas les mhm. ma dem trois mois après ñu yónni ma mission donc lii c'était l'une des plus grandes réunions en Afrique sur la Cour pénale internationale en mars mhm. réunion boobu d'ailleurs ci laa xamee grand Alioune maa ngi ko ciy bi ñu paree nag Abdou Diouf woote palais pour recevoir les séminaristes ci laa c'était la première fois ma dugg palais ci laa am photo bi ak Habib Thiam ak Abdou Diouf ma leen di sargal ñoom aussi di leen photo bi ak Habib Thiam du primature non ñaar yëpp même même réception bi la même réception ah, bi la l'autre photo Vieux waaw bii tam beneen président la j'adore ces deux photos lii c'est en décembre 99 à Genève mhm. donc Ablaye nekk nekkagul président et c'était la première fois et la dernière fois ma toog ak Ablaye Wade. Hmm. lii 99 il était pas encore président boo xoolee photo bi que li je sais pas ndegam xàmmee. Abdou Fall Abdou Fall Abdou Fall. à l'époque ñu ngi nekk Genève nekk ay jeunes j'avais na ami Asmalik Ndiaye maa ngi koy nuyu mu ngi Canada. Hmm. moom ak Abdou faal ñëw dëkk HLM. Abdou Fall grand am la. donc Abdou Fall bu Wade doon ñëw fii Genève Suisse moom moo koy jiitu di ko préparer rendez-vous yi mais comme hasard par hasard temps yooyu Euh, Abdou Fall moo waroon accueillir Wade pas à l'aéroport ça aussi c'est important de le savoir mmh. à, à la gare Cornavin de Genève mhm. Abdou Fall disponiblewul Asmalik boobu disponiblewul ñu ne ma est-ce que mën nga disponible pour accueillir Wade je tiens à le dire c'est très important trois mois lañ ci teg Wade nekk président mhm. jour boobu man maa ko accueillir gare Cornavin beneen photo gis nga photo bi dañ ko dagg mais Viviane moo nekk à côté mhm. d'accord donc ñu ñëw en couple man maa leen accueillir à la gare Cornavin offrir leen café togg ak ñoom waxtaan une heure de temps jour boobu laa ko wax ne j'espère que je pourrai vous revoir un jour monsieur le président de la république mhm. mu ne oh pourquoi tu m'appelles comme ça ma ne que je suis sûr que vous allez gagner lors de la prochaine élection présidentielle gis nga élection boobu dama jël deux mois de congé ñëw Sénégal fekk naa premier tour bi fekk naa deuxième tour mhm. te pourtant ba tey j'ai jamais revu Ablaye Wade se un ah exemple extraordinaire pour l'Afrique wax naa waa PDS ba sonn nañ ma may ma seeti Ablaye Wade kenn ah. doxu ko dinaa leen mere nag parce que je veux le revoir pour waaw mais je veux le revoir j'ai pas de porte pour le revoir mais bëgg naa ko gis pour xam-xam bi et pour toute ah, autre chose la ko on a on alors bii li tax ma def ko ci mhm. lii c'est un village lii c'est en Zambie mhm. c'est un village bu nekk à 300 kilomètres de la capitale Lusaka xam nga lu tax ma def ko ci mhm. lii j'étais consultant ma tudd organisation yi pour obligation de réserve yeeg gis nga lii Union européenne dafa am benn fonds lii c'est dans le domaine di coton projet yi coton li ngeen gis daami yoon ko nii mhm. mooy machine yi ñuy tricoter coton yi mhm. li tax ma def ko pour wan africains yi nañu yeewu kii c'est un programme boo xam ne c'est des milliards mhm. benn organisation internationale benn structure moom moom financement yi Afrique moo ko moom Afrique la ñu war a financer mu jël milliards yi jox ko benn organisation internationale organisation internationale boobu jël benn cabinet de consultant européen jox ko <laughs> cabinet de européen boobu man jël ma comme consultant fii bi ma fay dem business class laa demee le billet rek dafay jël ay cinq mille 5000 6000 euros ma ñëw dem à 3 ça c'est un village gis nga maire ba ne sol lu verte daf ma sololoon ne du ma bàyyeeti comme ni maire def fii rek. Mhm. ne léegi man maay jëkkëram dootuma dem. Mhm. li tax ma def ko ci mooy dama demoon pour évaluer programme bi mooy machine yu ndaw yi ngay gis. Mhm. xam nga machine yi ñaata lay jar 40 dollars. 40 dollars. pour filer le coton. voilà machine mooy yi ngay gis nii ci suuf 40 dollars. man d'ailleurs bi ma fay jógee dollars yi ma yoroon sama poste parce que jigéen ñi dafa am ñu am am ñu amul. man li ma yoroon sama xaalis sama sama xaalisu bopp dollar dama jël may leen ko ne leen lii kat mën ngeen ci amaat ñaar wala ñetti machine j'étais scandalisé xam nga lu tax c'est un programme de ay milliards. kii fay ay milliards ñu jël ma consultant man lu bari lañ ma doon fay wax dëgg yàlla. Mhm. jëlal ma billet d'avion di fayal ay billet d'avion 4 millions 5 pour un programme boo xam ne li nga ci dépense li nga ci dépense bi matul 2 millions j'étais choqué jour bii dama ne mais lii mooy coopération au développement mm. c'est-à-dire que dañ koy lay di lay ci biir Afrique gis nga lii bu ñu koy wax bu ñu koy def bilan dañ naan jox nañ Afrique 2 milliards jox nañ Afrique 3 milliards mais intermédiaires yi gars yi dinañ fexe contrat yi fu muy jaar mm. ba sur les 2 milliards un milliard neuf cent quatre-vingt-dix-huit million ci ñoom lay des les miettes moom la ñuy jox africains yi te bu ñu paree on est obligé de les remercier. Mm. donc lii man daf ma yee ci lu bari pour wane ne coopération au développement bi ay naxaate la parce que lii mais ñëpp ko mën ay machine u 40 dollars. oui ñëpp ko mën mais foofu lañ ñuy naxee ba tax suñu koom du dem. la prochaine photo. waaw bi nag moom lii lii c'était en terminale. ba Youssou Ndour. waaw <laughs> a la cote bii bii bii bii maa ngi def terminal au lycée Abdoulaye Sall c'était en 90 donc ça fait 33 ans je pense que li ouverture foyer la woon gis nga ni ma yàggee bëgg ay sañ-sañ yooyu noonu. en tout cas rouge bi saf na. waaw donc lii c'était en 90 bon ma ci nuyoon nag tous mes amis du lycée Abdoulaye Sadji ñoom Roxé Ndiaye wax naa ko sànq Jacques Apollinaire Sagna Cheikh Tidiane si Ndiaye. Euh, Daouda Diouf Nima Baldé Khadijata Diouf vraiment bari nañ Daouda Diouf macha allah euh, c'est c'est une belle époque c'est une époque sans ah souciance après ci lañ amee bac dem Université Saint-Louis quoi. et c'est cette belle photo euh, moom mooy jeexal mhm. donc déclic jeexal.